alaikum. bonsoir tout le monde pour qu'on y va plus vite appel rek est lancé un appel rek pour ngeen comprendre dëkk bi fu mu toll ak li fi xew malgré son, mais il Mais que mais que nous intervenir

nga leen màttal leen ma diw ak diw c'est ça qui me fait saa bu pare ay xajam ba noppi day daw génn réew mi c'est ça qui me fait mal te moment yi justice justice gars yi justice bi mosul baax Sénégal justice bi mosul baax Sénégal ce n'est pas Senghor mo jël japp momadou Dia ci loxo dem tejj ko Senghor jappul momadou Dia ci loxo dem tejj ko dedet justice bi mo tejj momadou Dia Omar blonde Diop Senghor japp ko ci loxo tejj ko justice bi moko tejj suñu mam di bax di Cheikh Tidiane al maktoum justice mo yak carrière politique am Moustapha Si Don anti-système justice mo yak carrière politique heureusement il se maintient jusqu'à présent. rébellion de Casamance justice a commencé La première manifestation le 26 la mais six jours avant ñom dem nañu japp ki nga nañu leader bi ce qui n'est pas normal la justice. donc l'Afrique est mal rentrée dans l'histoire de l'indépendance politico-judiciaire. Afrique un problème de justice on a un sérieux problème les guerres civiles Rwanda c'est la justice les coups d'état au Mali au Burkina au Guinée c'est la justice parce que si la justice était libre et transparente coup d'état du am ba de justice il faut que nous ba wacc ci ci lan justice au fond kan moy def le sale boulot de bâtard dans la justice 1. les OPG Yo OPG tu ci commissariat ñu yónni la ci loo xam jàng sa formation xam nga ne dañ la ne lii du yoon nga def formation ñu massacré la sibil ay ministre u Ramata Ndiaye dara ba dara booloo jeex ña la joxal ma jiw convocation andil ko ko c'est parce que doomee xaraam nga teew sa bataar moo tax nga sañ def loolu te de, commandant bi tapé enquête bi tata tata tata war charger nit ki te yow mu leer ni da ngay fen sa digënté ak sa borom tuyuma té nga né da nga wor té mu leer ni li nga koy tapel ni ministère de l'intérieur la joge ñew doomi xaram nga de trois procureur bi lay jox mu leer ko ni li yépp ay fen la mu fas yéene la tëj si kaso bi ñen fakk ni li ñuy def ñi ni c'est montrer le bon exemple à la jeunesse jàpp nit ñi di tëj ci lu dul yoon di won xale yi ne nu ñu neex lu ñuy doxalee yoon lu ñu defalee après nag ngeen bëgg nag ñu fi ñeneen toogee réglé déedéet balaa ñoo réglé ñoom it foog ñu fayu. Macky Sall ñu fas yéenee jox réew mi nii réew fayonte la ñuy jël deux ans yu njëkk yi même bu Sonko bàyyee ñun du ñu bàyyi. <coughs> gars yi dafa yomb de chaque fois nit day toog ab Ablaye Wade toog fi rey onze personnes def lu ko neex. ci ñu ne la woy tout ça ça passe à l'eau négatif loolu moo fi dootul am négatif si fini Macky Sall moom Sonko baal ko woo armée jël réew mi woo Macky day fay te am na wax bu may fas di dégg toujours si booy ñaa non man dama cher eh ku cher ku nekk am na njëg góor day farlu góor soxlawul ngay cher gor bir da ngay farlo ku cher ku ne am na ñeuk cher tax bu ñu jël sé sa morom door ko ci kaso bi suba do sen manifester mais bo farlo tu t'en fous de ku ñu ci kaso bi yow manifestation bi yow sa force lay doon gor day farlo farlo moy ñu ngi leen di teg loo xam nous sommes au sommet momay jeex na ba nopi kaso yi fess na ba nopi yéen a mun libéré réew mi ay nan ni Sonko génn ak tey ma gis ñëpp dima ma paas image non Sonko ni gauche droite c'est bien beau mais eh Sonko ne peut pas changer ce système sans vous la jeunesse c'est impossible té dafa am luma metti nak ci politique Sénégal bi pa ñëpp ñu ngi leen di cax nan la non Pastef fois parti innocent la parti innocent la gars ba xam ngeen ni Sol sonko Sol sonko actuellement ci leader il n'a pas de fils dans la politique bo len xamul nak lan moy dom ci politique tay ñu wax len ko ablaye wad mosul am toj toj ñu yobbu ko kasso sans ses fils mosul am ñi dem rek Seigne moustapha si tey mënoo ko jàpp kaso te yobu ay domam te ñi ngay yobbu kenn santu ci si juri ci kenn mais c'est ces enfants politiques ana Cheikh Anta Diop ñan ñoo ko gëm Cheikh Anta Diop ay doomu métis la am eh eh ana doomu Cheikh Anta Diop yeen, kan mo xam doomu Cheikh Anta Diop mais Cheikh Anta Diop il a combien d'enfants dans le monde combien d'enfants dans le monde te des fois de nga gis ay nulaar boo ne Sonko amagul doom ci politique bi ah, doomu Sonko yi parce que vous êtes nul Ablaye wad tay boo ne Ablaye Wade boo ne Guess da ngay da nga daan wax Farba Senghor domam la Ablaye wad da nga daan wax Idrissa Seck domam la ndax ñoo Ablaye wad mo soko japp kasso da nga daan tej landing sabane Farba Senghor Pape Samba Mboup Idrissa Seck mu jagn fa bu ndaw bi dañ ko daan noqaale ci kasso bi Ousmane Ngom Abdou Diouf dagon Bakel Bakel di def 50 degrés muy fanaani ci ñom ma di ci soxo ayoo Abdou Diouf dan limu dan campagne foot be Bakel la gan fanan tay ban njiitu rew ngeen gis ni fanan Bakel parce qu'il avait ses fils fanan tano je fils Abdou Diouf la ayo Khalifa Sall amna fils si politique bi parti le fils fisam la parce que xamu leen politique su ma tëbee ne non les fils de Sonko noo ko manifesté mais les fils de Sonko ñooy kan El Malik Ndiaye

tay li ñu nar tey tay sunku sunkuni ma gis leen ñi tok ci ay conférence dara ñi tok ça ne se passait pas comme ça du temps de PDS bo daan convoquer Ablaye Wade guddi googu kenn du nelaw Ablaye Wade li tax mu bok élection ba tay té ray met Babacar Sey mais mu fexé ba jëlat réew mi nekk président té ray met Babacar Sey c'est signe je persiste Abdou Mbaye xamna lu may wax bu baax ndax bayam mo waron def moo waroon décréter deuxième tour ne leen da ngeen di dem deuxième tour Abdou Diouf bañ ne ko dee maa gagné mais Abdoulaye Wade gañewul woon deuxième tour la waroon dem Abdou Diouf ne ko dee da ngay ne maa gagné Pa Kéba Mbaye bañ ñu woo Babacar Seye mu nar ko wax Abdoulaye Wade éliminé ko dégguloon li ma wax ba ñu ko rey xam naa leen pour muy clair Ablaye Wade rey mat ba meer Babacar Seye buñ ne colof ñu ne yéen réew mi nii la war doxee réew mi nii la war doxee réew mi déedéet yéen yéen a war porté wu volontaire doon ay fisu Sonko xëy dégagé képp ku taxaw buntu kër seen papa war ko déranger est ce que tey yéen ñii ñëpp naan Sonko Sonko est ce que tey di ngeen nangu tey ni police assiégé buntu kër Sonko assiégé ko yéen seen koñ yéen waa Pikine ay woo lu ñuy def ci kër góor gi sañ ay woo na Sonko dem fanaani rek pikin nga xool ndax sañ nañ ko def mbaa Sonko dem fanaani Kër masaar mais tey ana meeru Kër Massar mu ngi ci kaso bi ana waa Kër Massar ñu ngi ne tekk ah, comme si rien n'était léegi loo leen ñu ne leen génn leen comme bële passé génn leen génn leen ba may liggéey daanu dem hôpital sa way bi tam damay nan ay garab pour nek au calme pour meuna wax ak yeen au calme muy dal kenn du yobout sama xol bi ñu paré ñu paré deug gis nga bilda hi bo leen pare woon deug deug deug deug deug dëgg waxi Sonko dañ koy sul mais c'est dommage que li ma leen waxoon tôt ou tard dañ fay yegg décision finale bi Badio Camara kay jël gaay gis nga dinañ leen tegantu piège sawa sawa sawa ba décision jot Badio Camara ne leen lii ak lii ak lii ak lii lañ koy téye du jàll élection Youssou Ndour yoralul woon Sénégal kenn Youssou Ndour banque suisse la yoraloon looloo taxoon nekkul candidat 2012. moo taxoon conseil constitutionnel rejeté ko bu ñuy wax na génn leen génn leen da ngay gis ku toog ne ah comme tëjuñu ko rek comme tëjuñu ko boobu nag ci lañ leen di sacrifier Sonko xamna fu enjeu yi toll maki genn na rew mi xam ngeen ne bu genné rew mi da bëgg taal bi pa duñ fi nekk di ray sam bop ay génn leen bu mu waccat yi jamais man dal len rek la leen di féliciter moy Bignona ñom depuis sank ñom 18 h avant heure ndogu suba lañ convoquer Sonko tay ñom démarrer nañ taal nañ fep déjà déggoo lu ma la ñun secteur yu ñu yilif ay Père daba ay Kayasof ñun secteur yu ñu yilif man tobor la nekkoon ñun tobor sama dëkk la fa laa dëkk ñun secteur yu ñu yilif ñun daf ñu leer na ñun bu ñu amoon cinq communes yu mel comme ñun rek jaaxal Macky Sall cinq cinq communes laa la wax yu mel ni Pignona ñu jaaxal Macky Sall barki sëñ Bamba Macky jóge fi té ma wax leen dara dé amna kilifa yu bari yo xamné mama bi nek ci tanku démissionné lañ nek armée dem leen lacc avocat yi moment bi ya comme yow dom de tenue yo xamné ne ñu ngi démissionné té tay ma waxat leen benn secret bo leen yëgul sur la mort de Fulbert Sambou ak Didier Badji gay yi ngeen réagir parce que yeen déjà rek lolu lolu rek raison coup d'état la coup d'état je m'explique Qu'est-ce kenn nous? coup d'état arrangé mais coup d'état bu comme bu ça c'est la population qui a renversé le président de la République pas l'armée Guys, c'est l'effort qui fait l'effort au bout de l'effort l'homme fait l'effort mënuñu toog ñun ñëpp di ngan ñi armée ngan ñi armée te defuñu dara wàccuñu ñu si terrain bi ñafe ko mun mënta nekk ta ne man jëba la vérité man tey bu armée tey toogoon xëy ni rek tey wàccee Macky déedéet damay bokk si ñu leen ñu njëkk xeex damay xam Casamance la ñuy njëkk sama secteur bañ yaa ngi leer de mën a manifester wàcc toj dëkk bi Macky Sall wàcc armée jël te condition yi ñu changé système bi ak constitution bi il faut quitter cette constitution de merde parce que moment bi constitution yi mooy tëj nit ñi pas nit pas nit ay tëj nit. ñu ngi saaga juge yi rek lu nañu wax ko juge yi te juge bi ndeysaan këyit lay recevoir juge këyit lay recevoir damay waxtaan ak juge yu bëri dañu naan grand mosuñu tëj kenn ma ne ko booy tëgg bu ne mosuñu tëj kenn. ñun këyit lañ ñu jox procureur day jóg de wax li muy wax wax ba jaxase yow ñu ne la tel article tel article moom mooy toppee kii lii kon kii lii nga koy tëjee. kon fu tëj jóge chaîne gis nga chaîne ni muy defee par benn lonk par benn lonk ba am crochet tribunal bi ñu tëj ci kaso bi noonu la demee. ñepp laa la wax sans exception non la démé OPJ yi imbécile yi jël seeg chauffeur yi commandant bi defar ki PV bi xat bi jël def ci auto police bi les policiers là yi déplacer gars yobou c'est des policiers parce que yow lèr na la ne sa diggante ak to borom ordre yi ñu la jox tuba bi la yi Macron amul fitu defloo fi yenn policiers waxuma la ab commandant de ab OPJ wala ab élève policier Macron amul fitu defloo ko yéen nii ñun nag toute la saleté du bled est fait par les hommes de tenue. gars naan juge yaa ngi tëj juge yaa ngi tëj waaye juge bi yow naka la dul tëjee yow xoola juge bi amul fitu ñu bind si kayit bi lu ñuy bind yëpp procureur lire liir ko moom si boppam liir ko ne bàyyi naa la nga dem. su Boba, bu juge réunir dañuy dóor sa ndig parce que yow juge qui juge la nga juger sentiment la justice n'est pas sentimentale et actuellement on a une justice sentimentale oui c'est-à-dire une justice qui ne peut plus arbitrer ñun loolu actuellement on a une justice qui ne peut plus arbitrer parce que c'est composé de bandes d'amis et de bandes d'imbéciles de bandes de bâtards en grosso modo ay vrai pas chien ñoo wër suñu justice bi baaxum mafia la ñëpp xam nañ ko Hamidou Diouf mii du mu leen nëbb de Hamidou Diouf pour ñëw ne Sonko condamné naa la un an ko ba ñu Kaolack dóor ay juin dem yoonam ak naan ndox la yemale il s'en fout dañu lu ñuy sentir nay leer de te suba condamnation bi procès bi xam nga man lan laa gëm non suba Macky doful bay def procès noo noo non Macky amul fit bi suba peut-être wax na la di set bi gars yi ndax xamoon na ne day dem dem umra xamoon na ne day dem màkk comme ab doome ma nekk màkk man heureusement ba temps yi man moom tey moom heureusement ba tey julliwuma bëccëg bépp tey nekkuma màkk ndax Macky Sall mu ngi fa tey moom li heureusement wooruma tey lu jëm si Macky Sall bokkuma ci man tey biñ ne Macky ngi màkk laa laa démissionné man noonu laay demee philosophie boobu man su ma la bañee bañ naa la te yàlla tax ab franc-maçon xaraamata njaay xaw ma lu muy wuti màkk bëgg a taal suñu réew daw màkk tey waaw damaa yéeg ba noppalu naan sa ngay joli prendre xappi nekkuma màkk tey maa ngi bàq soir boobu su mu leen si ñëwree di ngeen daw ñu yeggali suñu suba bi suba reporté moo gën a wóor bu forcé def ko dëkk bi day tàkk par force gay jot nañ ci lu wóor ni dekk bi bu maki forcé suba condamné Sonko boy tal rew ci xam nga lan mo neex ci combat bi hmm? Passif ñoom rek kay xeex de policiers ak gendarmes yi c' des pions neutres parce que lan c'est des pions commandés est ce que mos ngeen gis manifestation passive bi xewon Côte d'Ivoire xew Sénégal wa APR organiser manifestation ñu ne dañuy xex ak ñi pour gagner ayo même avec la police ils n'osent pas même avec l'armée ils n'oseront pas boy ma sama nday ndekete jeunesse bi xol yeen mama bi ay neutre ngeen ni xexal parce que tay bu Sonko toogaatoon cette même police là bo len manifester moy dara sen kaw c'est même police là de kenn du leen dàq nay leer de ñi ci def ay exaction rek lañuy dak juger len mais boy ni di len dor lacrymogène bek di xex ak yéen ni kenn du leen dàq si ay fonctionnaire lañ nay leer gendarme yeeg ñepp ci yam ay ordre lañu recevoir su doon lolu ñi ray 11 personnes yi 2011 wàcc ak 2012 mais ba tay ken dàqu len ni rayate ñu ngi ci terrain bi di dox chauffeur bi doon tawal boy bobu mu ngi ci terrain bi di dox boy mbuk ki mamadou diop chauffeur bi ba tey ay wala lan moo tax muy dox ba tey moo tax xeex bi nag foog mu am foo xam ne su fa tolloo booy fu ngeen am fit fulla ak fayda kese mooy xeex bi fu mu toll ni xoola kenn du leen ne génn leen kenn du leen ne takk leen masque lépp jox nañ leen ko le 30 bi xam nga lan moo ci des moment bi wàcce vagon yi ci raay bi dawal ko jëlee fi Macky Sall kese moment bi raay bi train bi wagon yii nii bu demee bu buntu palais lu leer laa leen wax suba boo leen manifesté en même pas deux heures de temps camion armé yi nekk foofu côté wakkaam bi lu leen di génneel parce que nee naa la seen note de service boobu dama ko ragal publier rek ndax affaire armé la boo ko publier mën nañ ci jàpp ay nit yu bëri parce que fi mu jógee garaaw boo leen manifesté suba laa leen wax de balaa deux heures de temps affaire bi takkar naa si dëggantaan nga ñefe ko dëgg armée dina génn premier di wëndaalu mais ça sera pour vous intimider du mo a tiire si yéen dañuy def intimidation te leneen Cheikh Wade ndekk avant le 4 avril xamone na ne wàcc na tëb na depuis le premier Cheikh Wade tëb na bu yag ndekk défilé bi ak fi bàyyi même défilé bi organisé ko comme liñ ñu doon def ci 4 avril bi noonu boo leen ni manifester le 30 bi nga gis militaire yi génn yéen ñëpp naan ma armée ngi ni mën leen pour défilé la même auto oh, yi mu ngi foofu bat blende mu ngi foofu wakam bat attitude mois mu ngi foofu wakam tege te auto yi yu ci bari ñun momu ñuko français ya ko mom yiñ leen won lu bari turki mo ñuko jox kon mama bi préparation bi xam nga lan mo ci dess psychologique et mental ko tay nu mu génnee ni il était à l'aise à l'aise donc est ce que jot na convocation man de ba démb bi may def live jotagul won convocation kon procès bi gars yi dañ ko convoqué ba paré mu mel comme safar seeni tat mu wax len xat nañ ko waxte dé nañ ko waxte dé procès bi daf len wax xat fu tonni bëgg nañ ci génn mu tëleen mambay ña ma nga gis ngeen naan ñi naan dafa fébar ak ñi fébarul eh Mame ñoo nekkul hôpital de simple intoxication la rek mais du feebaru hôpital de xam nga rek soo wooree saa nga ndogu jël loo xam da lay escanté kenn hospitalisé ko gis nga xam la lay bañ ngeen ne dañ ko hospitalisé suba mu génn na xujj saagaat ni mais woor nag boo ndogoo ndox bu bëri mbaa nga ragal koor wala ndogalu ëpp mën nga am problème digestion loolu yëpp sa arrive si nit mais Mame Mbaye Niang procès bi bu demu don tay bu demu don tay Mame Mbaye Niang day bayyi dossier Adji sar bi dem moom mu genn ci wax ci moom day genn ci wax ji bëggatu ci dara bu demu don tay xam nga kan moy genn di taxaw non nga nan ni déedéet gis nga bo leen ko gisee Mame Mbaye Niang di wax ak yeen gonflé kanam gi changer parce que bobu suy wax fay sol kanamu Macky Sall kanamu marem fay Sall kanamu Moussa Fall pour am fit mais jàkkaarloo ñun lu si nii kese kese Mame Mbaye Niang wax ak yéen day sóob ñemee ko waxul dëgg il ment ñemee ko mais dañ koy pompe yokk ko fit ay ñoom Antoine Diome objectif bi ñëpp xam nañ ko te Idrissa seek wax na leen ko ba pare Idrissa Seck ay code la leen jox nee na cour suprême la jëm après mun na dem cour de cassation waaye même bu faloo buñ ko jugé loolu yee eh. suba buñ ko naree jugé dóor ko pen ngeen noq Macky Sall noq yi metti noq leen ndeyam suba bu ñu dooree Sonko pen ya wa dofuñu sax suba koor lañ nekk dofuñu tey xa léeg xadr la man yëg naa ne waa Tiwaawoon ñu ngi intervention intervention yi rek am ngeen sens mais s'il la ko con noq leen ko noq yi métti am na foo leen di jaar ak Macky xoola coow dootul jib si réew mi am na foo leen di jaar ak Macky Sall billahi coow dootul jib cassation lañ koy yóbbu te boobu xoolal kenn du ko ñemee jugé te élection passé wul Idrissa Seck jox na leen code bi moo tax man leen gis nga nit bul ko dégloo mer buñ ko dóoree cour suprême dëkk bi takkar naa si bu bloquez tu xam nga tey ñoom ñoo bloqué lépp lii laa leen doon wax keroog ci ma mafieux lan mooy yoonu transport yi suba bañ na Dakar transport du daw tel heure tel heure ndax dañoo convoqué Sonko walé lu ci yoonu transport ñaata militaire ñaata gendarme ñaata policier ñoo nekk ci mbedd bi lu ci yoonu transport lan mo tax su bu ñu newaat banque day tëjëx lii est ce que Sonko moko wax est ce que le 30 kenn genn manifester biñ koy yobbu tout ça c'est fait exprès pour le commerçant yeeg yooyu bañ Sonko mais on s'en fout pour vous les élèves suba nak korité ajuma la profité leen bus, anticiper anticiper les fêtes, c'est fini ñoom ñoo tëj école yi pas yéen c'est l'état qui a fermé les écoles pour demain donc profitez et anticipez les fêtes point final korité ngeen jëm noppalu leen dóor leen mu saf-saf bi commencé nañ de moi moom je vous lance cet appel là bi ñoo a commencé nañ ñun duñu calculer ñun suba la dañ koy commencer. tey muy neex suba bu ñu xëyee nekkaat anticiper le booy yi fête mu jeex ku nekk dem Macky Sall ko bëggee noonu c'est lui qui a bloqué l'économie pas Ousmane Sonko encore une fois qui dañuy bloqué l'économie, bi journaliste Kharamata Ndiaye télé qui a bloqué l'économie actuellement C'est pas l'opposition. aujourd'hui l'opposition s'est réunie mais y a vu toute l'opposition FAP F24 Quand Quand manqué une opposition Quand kan manqué kan fan mais tu Quand Quand Quand mais tu Quand convoqué essence bi du jaay na kii kon léegi kon ñun kon ñun kon les hommes qu'on sort là gendarme yi nekk ci mbedd bi policiers yi nekk ci mbedd bi donc ça sert à quoi le système là bàyyi jouer ce faux jeu avec le peuple di len wan ne Sonko mooy bloqué affaire bi Sonko n'a absolument rien bloqué vous la jeunesse vous n'avez absolument rien bloqué c'est l'état qui bloque tout ça là pour ne mais nak sa bop nga koy def ndax investisseurs yi dañuy japp ni dëkk bi amul stabilité c'est instable pour les prêtres, nous a destituer par passif mais mon chance aujourd'hui toute l'opposition réunie liñ len xaxar pour nous. doon benn ku nekk jël ci égoïsme option mooy Sénégal Sénégal ñu ñun 1659 ba falaay waxee des fois man leen bu ma ne Sénégal rek bu ma kenn andil sëriñ teg bu ma ne Sénégal bu ma kenn andil diine teg bu ma ne Sénégal bu ma kenn andil kenn teg nee ma Sénégal ba pare ñu doog a tàkk. depuis 1659 la Sénégal doon Sénégal kon bu ma kenn dëkku maam Bàmba la dëkku maam Maodo la dëkku maam déedéet. tubaab bee ko tuddee Sénégal wax naa leen ko tubaab bi nekkoon sànji ñiiri di doxantu wat ba yegsi moko ko Senegal, sénégal soo xëy la suñu gal ak neer ak sénégal lañu jaxase ndax guiné dëkk bobu lu tubab bi njëkk japp bi mu koy def sandi neer sax sénégal bi prime mo ci nekk so xignal la suñu gal ak suñu mbay gis nga traduction orale bi ño andi bëpp fenn la jor tubab be ko fekk dañuy fen traduction orale la jor nit ku ñu lako fit xeetu ginnaaw lañ ko traduction orale be ñu traduction orale bi moo général Alfred Diallo Bach. Ah. pourtant traduction orale c'est moo fen Le général Alfred Diallo moo ci population bi waaw mais général Alfred Diallo Il Senghor ñoo teg affaire diine Mamadou Dia dem ko ko na si ji Mamadou Dia <laughs> coup d'état dem lire d'état Mamadou Dia bobu les chefs gendarmes ils étaient opposés mais général Alfred Diallo mo ci tek mo ci tek tankam ak Senghor jël Mamadou yobou ke dougu gardé par par l'armée Macky Sall il répète les mêmes erreurs de l'indépendance comment il est en retard man Macky Sall man retardu xaj bi mu nekké momo Li def ka li li amon na fi du lu bess mais bobu le peuple n'avait pas compris bi justice ren de Khalifa Sall ken comprendre mais légui nak ya ngeen doo ko comprendre ne justice dootu fi wax troisième mandat comme nous def ak Ablaye Wade ne justice du fi condamné Sonko ne justice mënul tax Sonko bañ nek candidat là au moins ñun suñu liggéey éveil des consciences mu ngi doog répondre au moins éveil des consciences bi répondre na parce que en 2011 répondre woon en 2016 Ziguinchor bi may un problème ci affaire référendum bi référendum may noq ci kaso bi la jeunesse n'avait pas compris mais là là là je sens que vous êtes que vous êtes au niveau top parce que la xam justice ne va pas faire justice ne va pas justice ne va pas merci maintenant comment batailler avec la justice on ne peut pas lutter avec la justice mais on peut batailler farouchement avec la justice La seule justice libre, c'est la justice du peuple. Seule une justice populaire pour régler le Sénégal. juge vous juge le mu qui kii ñu tribunal taal vif quest nga que bu ñu juge Sénégal tal ko surtout pétrole ko mu ah du président juge merde réew nak amna na toll lu ay Sri Lanka def japp ay juge dor dor yu metti ñun dañ fa toll yeen jeunesse bi sen génération bi dum leen de bu coup d'état amulé ñi violence bi ñi exercer sen kaw bo leen wat bi pa exercer la même violence sur eux n'hésitez pas à exercer une violence extrême sur ñii parce que gis naa ne temps yi violence pour dara la ñu commencé tegal booy

des fois sama far day métti de parce que c'est trop facile ce qu'ils font là ba pare maa ngi seetaan ñëpp di si lamenté waa ah, déedéet régler ça yéen a koy gérer li mënatul xew si réew mi li amul ben réew li xewi na li xew Sénégal dafa xewi. quand même respectons-nous défendez-vous nag kaso yi fees na de tàkk leen andil makki giita ngas bu mu dul antan kaso yi fees na duñ fa dugalati kenn ngeen rayanteeg ni ni boo leen rayanteeg ñoom six heures de temps. ñu levé bii paas loolu lañ leen naxee bii passé yëkkati drapeau blanc ngeen jubile ñu ñëw jàpp leen yéen ñëpp nokk ci kaso bi bii paas boo leen jekkoo bu leen bàyyi tànk que génnul ñun fa la ñuy waxeex yéen ngeen yaakaar ni dañoo bëgg Sénégal am xeex bëgguñu ko mais Macky moo ñu woo ci xeex dañ koy noq Macky kenn du xeexateeg moom parce que Macky xeexul waa APR kenn xeexu ci les chiens de formation laa li ñu génnee teg leen ci tali bi ñuy wow ñooñu nag la noqante bi jot moment bii mais pas di leen may ay café ndogoog di ko publier foog ne vous avez gagné ñoom bu ñu leen jekkoo noq leen am dootu ni du mbokk maa leen gën a xam li may wax. ñoom bu ñu leen jekkoo dañ leen ni noq lii moo tax ñoom ñu naan civil du ñit gis nga lii moo tax gis nga am dootu ñu naan la civil du ñit amuñu xel yow comment kii di la noq. yow heure ndog nga ñëw jox ko muy ndog ma da ngay gis ko woote naan policier maa leen ne may mburu ñuy xëdd waaw boo xëyee manifester ñu noq la c'est parce que te bett ñii bàyyi la ñu xiif toog fii boo xëyee manifester noq leen mais nga jox leen ñu lekk ba ñu suur dindee sa njëlu kër ñu xëy noq la jël si sa sa doom sa biir kër yow nga ne yow tey un citoyen c'est ça qu'on appelle un citoyen parce que tey bett xeex bi fu mu toll nii dootu leen mbokk ñii bu ñu xasee sol tenue nee naa leen ñaar la kiy sol tenue ak jëmm ji bokkul bu ñu xasee sol tenue dootuñu seen mbokk foofu gatsa gatsa la

animosité politique lañ toll animosité politique ay mbam su la wéqee nga wéx ko nga wax waxi kat la waxi kat la waxi nafiq la mbam bu la wéxé lu ñuy dawalee mbaam du yatu kel yatu kel bi ngay jël toj lu bonam ba mu daw dox nank dotu lo ñeme wéx ñaan mbaam bu la wéxé kan moy wéqe mbam waxu kon yoy gis nga waxu wolof doomaram yi gis nga gis nga wolof lepp ci fen buy defar mo gën dëgg buy yaa moo yàq suñu réew fen buy defar moo yàq suñu réew. kenn baal ma de demain la bal est dans votre camp ñun moom bi ñoo na commencé nañ te les fêtes là anticiper nañ ko ba après korité élèves yëpp jël nañ fête on les a donné fête ndax chaque jour dañuy xëy mettil ko nañ neex la. yéen nag suba lép si yéen la dépendre moment bii du ma leen nëbb de bii paa gisoo kenn joxe stratégie xeex ndax joxe nañ lépp avant le 30 dem leen foofu jëli ko. maar bi foog ngeen xeex te di ngeen xeex par force ndax xeex kenn du ko préparé da ngay xëy waaw ak sama gars yi rek sinon ñun ñëpp ñu sacrifier ñu man ak sonko bëgg ñii live di dinañ leen paqueté si wat sama rase sonko tam di doon candidat ñu toog foofu suñu naqar ngeen foog ni dañ ñuy tëj ay 6 mois gis nga ñu bëri ñu naan 8 mois des ku dof doflu ba ñu sacrifier Sonko ñun ñi kuñ ci jàpp di nga tëdd un an wala deux ans parce que armée moo lay topp système moo lay topp wax naa leen lu leer. jàpp-jàpp yi ngeen foog ne ay kii lay jeex ku ci dof doflu ba ñu sacrifier Sonko billahi dina ci am ñoo xam classe ñoom ami jag yi nii ay ñoom Ousmane Kabiline lu leer laa leen wax dina ci am ñu tëdd 5 ans 6 ans parce que lan c' le même système qui sera là. tant que ñu la naan non l' état est continu c' est des mensonges ça ça veut dire que le système ne rend jamais avec l' état. Quand l'État est discontinu, c'est parce que c'est le système qui gère l'État. Mais quand on te dit rupture, c'est parce que tu as fait une rupture pas proportionnelle. Rupture proportionnelle, mais rupture boo xam da nga koy jéem a jongle une waaye rupture bu À astafurla astafurla astafurla ñi ñu ngi weeru koor su ma tàkkee rek lii moo tax du ma de vidéo ndax ay dëmm booy wax ak ñoom Boy, jàll baat doo ko tey gars yi ngeen baal ma de mais foog ngeen reyante suba xeex ko bu ñu reporté procès bi nag ñoo xam bu ñu ko reporté tam ñu préparé waat <laughs> demaat si terrain bi affaire bi moom ay xoola lii la rek armée mënulu leen dara gendarmerie mënulu leen dara TPE ngi xool France ngi xool Amérique ngi xool ñëpp ñu xool kenn mënu si yéen dara dara Macky ñàkk na Sonko day dem élection par force neex na par force loolu moom lu ma leer laa ci am day dem election wala élection du am 2024 loolu moom lu ma wóor laa ci am waxantoo ma ci teguma ko ci mystique teguma ko ci dara dafa maa leer pour 225 démb mën na leen 2 8 17 20 23 63 92 am ñu ma woo ma man alpha daat laa doon seet gis nga tuuru yàlla yéen ñi di employé tuuru yàlla boo bëggee loo xëcc mu ñëw boo defee 2 fatia 225 fatia la en grosso modo deux fatia nga tek ci tour yalla yi nga soxla dafa am chiffre yo ci tek fa nga xam ces chiffre 8 fatia, nga tek ci ces chiffre yi nga soxla 17 fatia, si 17 bobu nak moy 6 ba nonu ngay def ba 225 fatia yi mat mais day am yo ci tek lu may wax rek def may wor duma waxantou ñun saa dañ koy defe ak ay ak ak ñetti lixlaas par intervalle yi moo tax chaque fois mun nañ ne deux cent vingt cinq fatiha kenn waxuloon nga përëx përëxi lépp dañ ne deux ñetti kul xuwa huit ñetti kul xuwa dix-sept ñetti kul xuwa vingt ñetti kul xuwa vingt-trois ñetti kul xuwa 63 azu rasulillah ñetti kul di tuuru Muhammad ñetti kul xuwa lu may wax danga koy xam waxantuma le 17 bi ñoom ci xërëm ci leen jàpp ci 225 ndax alxuraan dafi fekk xërëm xërëm fekk fi alxuraan alxuraan dafi fekk xërëm chiffre boobu ñuy de defee 225 bisimilah rahmaani rahim pour wut la bàyyi leen tam di wérdi rek foog tey di ko wérdi lu mat 40 jours mu doog a commencé nekk si layen bi nga ko soxla gis nga wérdi dafa mel ne raay boo commencé taj taj premier bu une semaine da ngay gis ne yow boo gaawee xaddi tam nga découragé fekk déedéet alxuraan affaire di 40 jours la alxuraan affaire di 4 la. ci chiffre yi 2 4 6 dang nga koy bàyyi 5 7 ngay lal ak 9 dafa am ñoo xamne ne xamuñu dara te dañuy tok di weranteeg yow ci metti motax bo boo leen waxee ba paré naan hi sa law sa law way ba pare da ngeen di tok ci télé bi di naan su ma ra waxee ngeen di wax man duma faral kenn nee naa leen dëgg moo ma sonal luma wax rek def may wóor duma waxantu de 17 bi bi may wax ne saraxe di set sugar mo suma gis di set bi tudu man maa wax neena len dem ben benn sëñ bu sant mbàkkee wax te bugul ma joxe touram kon lumay waxantu ma chiffre bële nak bu sëñ Mara bi man ma len weddil sama bop yeñ ñiy tok di lo ma boy Mara man ma len weddil sama bop Ini ñi ma ci woo tey waxtaan nañ ci ba tek calcul yeb tek sur la table ñu gis na dafa dis gan makissal so motul def ci genn bu ci génnul deret mooy remplacer génnam. Macky day fen waay Macky day fen il ma Marème Faye day fen Nafissatou Oumou Diallo day fen ndax léegi fa la république bi kiiwee da ngeen ni fen Sonko sera candidat et sera le président loolu moom lu ma leer laa ci am léegi waxamtuwuma ci merci beaucoup les patriotes